abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar mi ak ci ahlan bikum 2024 ay wote du am senegaal su fekkente na njiiti réew mi Macky Sall fa ma bëgg a tere ma bokk ci wote yooyu wala su boobaa Sénégal fay tàbb ci guuta fitna ju mag du samay kàddu Ousmane Sonko moo ko wax ni ki démb bi muy séq waxtaan ak Télé ba ñuy wax France 24 te mooy yéen kaay yeggee ñu ko ak journal yu bëri yow fa ngay xool Ousmane Sonko fa wax ne njiiti réew Macky Sall fa wax ne fay def lépp lu mën ngir man duma bokk ci wote yi février 2024 fas yéene koo jaare ci wàllu tappale ak jaay doole ci wàllu yoon te loolu du ko seetaan de ba fii may wax ak yéen nag man éligible naa maanaam am naa sañ bokk ci wote yi si du quotidien mais Ousmane Sonko koy démb ko ko dégg muy wax fa nga xam ne kii deltuwut gannaaw benn yoon tey la gën a taxaw ngir ñàkkante fay xeex de ci vox populi fa wax tubaabee na leen gis ngeen wote 2024 yi faa ciy bokk te bésu wote ba ma bokk tubaab ba na ko ko faa ko félicité wut faa ko jaajëfalut ndax defut fi lu ko fi jar fa respecté constitution bi charte réew mi ndax fa ko tere mënta bokk te lii mu def dugguleet di Mauritanie ngi nii Nigéria seen président ba fa organiser ay te bokku ca kon lu fi jar di tëb di daanu te faa ci yokkal njiit réew Macky Sall wax na dootul bokk ci wate 2024 duut fa koo neex de wala ci sagom la ko defee déedéet moom fa bëggoon laaj ñetteelu mandat waaye askan président Macky Sall ngir jàmm réew mi mu ne ko ba fi may wax ak yow daal benn waxtaan doxu suñ diggante waaye man kenn du ma xoo teg fetal son bopp bi naan kaay ñu waxtaan du ma ko nangu de li ma ko yéene daal moom njiit mi mooy na organiser élection yoo xam ne ñëppay bokk mu génn mook njabootam dem ci jàmm l'observateur ne kàddu Ousmane Sonko yi démb fa doon tàngal ak a seddal fay xiiral léeg-léeg mu xoote jàmm ak dal réew mi yéene kaay ne Sonko kay fa wax jàpp ma bés bi yéen e kaay ne diggante njiit réew Macky Sall ak Ousmane Sonko seen ñàkkante bi xamul jeex de lii yéen e kaay ne waa F24 yi ñoom fa ñoo refetlu ndam li nga xam ne askanu Sénégal fañ koo am ndax bañ xeex bi ñu def moo tax njiit réew Macky Sall ne du bokk wote 2024 waa AFP yu Moustapha Niasse yi na leen ñun de bokkuñu yéen xalaat ñun fa ñoo gis ne njiit réew Macky ci sagoom la ko defee lépp ngir bëgg jàmm ci réew mi moo tax ñun fañ koy sargal waa F24 yi ku naan leen waa léegi su fekkee fa jàmm rek na bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ci wote 2024 yi ak képp ku bëgg a bokk bu mu ñu tànnal kii bokk dem rek leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne njiitëram makki sàll nee na dëgg la naam nguuram gi fay jeex fii fiile ak ay weer waaye su jeexalee du dem bitim réew de fii lay toog Sénégal ak Afrique Vox Populi moo ñu ko xamal yaw fa ngay xool ki war a nekk président bu Sénégal su fekkee soxla na ma koy xelal faa koy xelal nekk ci wetam su ko soxlawut man njiitëram Macky Sall faay tëdd fii sama kër wala xam na laneen lu ma war a def turbine yéen a yi ni mel na mu ngi ko yëkkati ci bi ñuy ubbi démb Sénégal waaye fa caa yokk ne wàllu kaaraange réew mu dal réew mu am yoon ñuy investir loolu rek lañ soxla te am na Sénégal info yéen a kaay na ko ah président yow kat fa ngay ngoro investisseurs yi ngir ñu ñëw Sénégal njiit na Macky Sall na leen waaw ndax réew mi ñëpp xaj nañ ci am na place ci képp koo xam ne fa ngaa bëgg a investir kon faa leen di wax ngeen ñëw Sénégal Le Soleil yéen a kaay na njiit na Macky Sall kay bëgg lu mooy réewum Sénégal suqarik balaw ci dendu Afrique L'Observateur ne waaye njiit réew mi fi mu toll nii juróom weer yu ko fi dese ci nguuram gi fa naraam ay yoo xam ne doxalee réew mi fii ak muy jeexal décision yam war a jël boo moytul xam na ñoo xam ne fañ ko yeeru de wal fajir yéen kaay ne képp ku nekkoon président ba nekkatoo ko fii ci Sénégal su yeboon na sa xel dal jàmm rek ngay xam te njiit réew Macky Sall mii am na yeneen dombu tànk yu mag yu koy xaar ci Afrique wala ci àdduna bi moo tax directeur général bu naa ma fàtte ci alerte yéen kaay ne man faay kañ faay rafetlu njàmbaar ak ci wàllu politique bi njiit réew Macky Sall wane te mooy wax ne du ma bokk 2024 l'évidence yéen kaay <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne yëngu-yëngu xam na ca biir meeru benn bokk yaakaar ya de karta ga fa tàmbalee jaxasoo de ah, yaaw seetal ginnaaw buñ dajeeg njiitiram Macky Sall yëkkati fa ay kàddu ci sàkk woon mu bañ a dem direct news nee na Mame Boye Diao Abdoulaye Wilane Oumar Youm njiitiram Macky Sall fa leen a peeral de maanaam la ñu wax dara la ca defut njiital AMS tamit Oumar Ba fa réero gaayamee de fi mu toll nii te mooy yéene kaay moom fa gis ne fi mu toll nii waxtu Amadou Ba moo jot ngir mu nekk candidat bennoo jiite réew mi Birahim Seck moom fa ñaawlu dogal bi ñu jël ca dialogue national ba ngir soppi code électoral bi lépp ngir Karim Wade ak Khalifa Sall bokk waaye nee soo seetloo coppite googu baaxul rafetul ci bonne gouvernance ak leeral alalu réew mi ma ngi ko waxee ca vox populi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne lam ñu yeggee moom libération yi ne kaay mooy ne Biram Souleye Diop bu Pastef ba ñu teg loxo ndax kàddu ñaaw yam wax njiitiram Macky Sall yi ne kaay bi nee na boo moytuwut fañ ko yóbbu information judiciaire de l'observateur fa ñoo <laughs> fa ngay xool fa xam benn xale bu góor fa bëggante woon doon génn ak benn xale bu jigéen a ah, xale bu jigéen ba bàyyi ko fa dem sëy ak beneen waay loolu nag naqari wa léegi nag fa gis na ndaw sa fa ko trahir pour fayeeku ak naqaral ndaw sa fa jël mbooleem photo yoo xam ne ñoom ñaar bi ñuy génn fañ koo photo woon photo yoo xam ne fa garaaw ay yaramu ne nag yu ma la mënta wax léegi fa jël yooyu yëpp photo yi wasaare ko ci internet bi yëf yaa nga amee ca diiwaanu Thiès hmm, ma ne fa xam góor ñoo xam ne xaw ma fa ñoo ñàkk jom xaw ma seen xel fa gàtt ah yow nga am xale bu jigéen ngeen génn fa ngeen a ba gis keneen ku mu gën bëgg dem sëy ak moom ñaanal ko yàlla yow tamit nga am fulla ak fayda dem takki moromam rek jàmm na ñooy waaye weeraange kon ñu sutura du yëfu jantal men de góor dëgg du ko def waaye yeneen xale jigéen yi faa leen di digal génn xale bu góor te takkut la xamal fa nga yem ak moom si suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew